wa tudaafu alxasanaat suma salaamaani taamaani alkaamilaani ala akmali wa ashrafi rusuli sayidina wa mawlana muhammadin bahjati kawnihi wa diyaai nuurihi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 ba tibbeeku ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yéen rek li ñu sosoon ak yéen ci seen émission bi ñuy tuddee jaar-jaar ñu ngi ànd ak yéen rek di jaar ci may sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama yu màgg yu tedd yi ko yàlla jagleel jagleel leen ko yenentu ya ko jiitu woon dañ foo ne ñoom rekk ko amoon ndeketoo mbubbu la woon mu leen sayiduna muhammad abaloon ñu koy sañsee ci seen nit ña bi mu ñëwee boole sañse yooyaak sañ-sañ yi ko yàlla jox di ko daagoo ay àdduna bi tukki moo tax waxoon naa la may yi nga xam ne yàlla mayoon na ko suñ maam aadama bañ foog ne moo ko moom ndeketoo yonent bi am na yu mel noona moo ko ko tëbboon rek waxoon naa la yonent yàlla Idrissa xataa waxoon naa la sax sayiduna noox tey nag damay ñëw ci yow ci sayiduna huut mi alquran ni wa ila aadin axaahum hudan yonentu yàlla huut mu tedd moomu ñëw gannaaw sayduna noox may gi ko suñ borom limal ci alquran mooy ngelaw la ba yàlla namee alak nitam ñu ci ngelaw rek la ko jaarale ba alquran ne saxaraha alayhim sab'a layaalin wa thamaniyata ayaamin xusumaan ngelaw yoo xam ne riddi na juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti bëccëg ca la nitam ña al ko ngelaw loola yàlla tàggataloon ko bañ foo ne moo ko moom ndeketoo yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tëbb yaa ngi koy xamee keroog xaswatu xandax bi xéeféer yépp defee benn coalition ñu koy tuddee xaswatul ahsaab ànd ak ñi ànd ak abi sufyaan ca musrikuuna ya munaafiquuna ya jug ña nekkoon madinatul munawara yahuud ya façon nag yonontu bi kóllëre ñee ñan dañu firi seen kóllëre ga jàpp ne daal bi xare moom yonontu munu cee mucc mukk waaye keroog ba ñu ñëwee ger ba la ko jeexal yàlla nga ko jaarale ci ngelaw ngelaw googa nag moo ñuy gendeekul ngelaw ak yonantu yàlla huud ya fee dafa ne woon saxara alayhim sab'a layaalin kon diire na juróom-ñaari guddeeg juróom-ñetti bëccëg kii nag ay heure rek la wa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha kon foofu moom ngelaw rek loo xam ne ab heure bu gàtt ci la ngelaw lu ñëw tabaarakallaahu kenn mënta nekkati foofu poussière bi yëkkatiku ñu tiit mu ànd ak lëndëm ga mu booleeg malaaka di ay soldaar yoo xam ne ñoom gisuñu leen foofa rek la guerre bi tas abi Sufyaan man maa ngi ñibbi mbir mi yàqu coalition ba tas lañ bëggoon ci yonent bi mu jiwul sotti kon Huud amoon na réexu mais Sayyiduna Muhammad am na réex ngalawal yonent boobu bu fekkoon defoon na ñaari fan mbaa ñett dara dootu fi desati wata ay heure rek la kii na ngalawam li lu mu néew néew juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti bëccëg loolu la ko alquran tuddal boo jëlee yonentu yàlla saalihu wa ila aadin aqaahum saalihan kële wa ila samuuda aqaahum huudan kii nag wa ila aadin aqaahum kii kon wa ila samuuda aqaahum saalihan moom laay wax si nii bu yonentu yàlla saalihu ñee nag moo doon huud mi ma génnee mooy wa ila aadin aqaahum huudan yonentu yàlla saalihu moomu ñaari miraakal la ko yàlla tuddal ci alquran miracle bu njëkk ba nitam ñaa ko proposé ne ko soo bëggee ñi gëm la rek montagne bi ngay ñaan wax ko mu jur gélém dañoo bëgg jamaat ki xayawaan génne ci moom mu ne yàlla de inna laa ala kulli shay'in qadir kartanam ba moom taliwul dara foofa mu ñaanee rek ponkalam gélém génne ci montagne bi ba muy génn sax borom xam-xam yi ne nañ dañu dégg ma ngay wonk ba mel ni jigéen juy matu ba ji ba gëléem gi nag génne ca montagne ba gëléem googu génne ci tamit juraat beneen doom bu tol ni moom presque mu ne am ngeen problème nag naaqatallaahi wa suqyaahaa mooy tëndiku leen gëléem gi ak naanam gi naan gi nag mooy tey bu ayee li ci dëkk bi ci ndox yëpp moo koy naan waaye dana taxaw ci buntab këru kenn ku ne ci yéen ngeen ratt ba ne soxlaatuñu meewum gëléem bu ci ëllëg saa ngeen aye noonu lañ ko nekkee mu jigi dëkk bi di ñàkk ndox bis bu gileem gi ayee ñu am problème benn ngorokat bu bon boole ko ñaaw lool tabaarakallaahu yonent bi ne mooy ki gën a texe di ci nit ñu njëkk ña mu koy jàngal imaamu Ali yu ne ko ndax xam nga nit ñu njëkk ñi ki ci gën a texe di mu ne ko yàlla ak yonentam moo ko xam mu ne ko ndax xam nga nit ñi mujj ñi ki ci gën a texe di mu ne ko yàlla ak yonentam moo ko xam mu ne kon li ñu njëkk ñu ñëpp ku ci gën a texe xat mooy mooy xudar mi rey kilim ak yonentu yàlla saalihu ga xanaa jàngoo alquran yàlla na idim baasa ashqaha mu taawaala ba nangoo buur ku nangoo buur ki gën a texe xat yi ndax toujours ñaareel ak mbon buñ koy jëmbat ci pénc rek bëgg koo def xale yi gën a ñàkk kilifa ñoo koy jiite moom nag comme dafay ngoro ca dëkk ba boole koog ñaaw poosam diisut mu bëgg a mottalikoo ñaawaayam boobu ak puus poos bu xoyof ba wane ne man ko am fit la ànd caag euh, tisaatu rëhtin jooje alquran wax tabaarakallaahu ñu jug nag dem di tërlu gëlem ak yonentu yàlla saalixo gi pour bëgg koo rey bañ ko dóoree rek gëlem gi ŋaax jàllar bi ko ŋaaxaat ñetti yoon la ŋaax door dee ñu dem wax ko yonentu yàlla saalixu mun leen ba ngeen koy bëgg a rey ba ngeen koy jam di ko rey ñaata yoon la ŋaax mu ne leen ñu ne ko ñetti yoon mu ne ñetti fan a leen fi dese bis bu nekk nag ci ñetti fan yi seen couleur yaram day wuutee bii bis day ñuul seen xar-xaram yi ku gis sa morom ne ko sa xar bi ñuul na di bu ci ëllëg saa mu xonq gis sa morom ne ko sa xar-xaram bi xonq na di bu ci ëllëg saa mu son ba jant bi di so tabaarakallaahu jibril xaacu leen ñoom ñëpp ñu alko ci alkuraan fa dam damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawaaha falaa yaqaafu uqbaaha kon montagne gëlëm génnee na ca gileem googu tamit yàlla bi ko juraat doom ju xaw a toll ni moom ñoom nag ñi mujj nekk ci coono yooya kon ndeke yonentu yàlla saalihu yàlla tàggatal na ko gileem waaye ndeketoo yonentu bi am na lu mel noona ndax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na mag madina ba mu fay ñëw benn gileem gu rabe goo xam ne dafa leen a jaaxaloon ñoom ñooña ñëpp ba ñëwee wax ko yonentu bi sallallahu alayhi wa mu nekk ci benn ngédd ci waa lansaar yi gileem gi gis yonentu bi rek mokk rupp jàll bi ku root sax ba mel ni ku ko ba sujootal ko ngir màggal ko ci la ko sahaaba yi ne ko waaw comme ñun dañoo xamul sa xàq ba malaa ñu koy wan dañoo bëgg bu ñu la ba maanaam di la sujootal mu ne day ren nag sujoot nag yàlla rek a ko yeyoo su fekkoon ne man sañ naa digal kenn mu sujootal kenn danaa digal waajur wu baax buy dundal njabootam te fasul yéene dundal leen ci lu dul lu lew te néew doole kooka da di koon danaa wax njabootam nga ñu sujootal ko waaye tamit ñaareel ba li danaa wax jigéen ñi ñiy sujjootal seen borom kër yi ngir xàq yu rëy dañ am ci moom waaye sujjoot nag moom yàlla rek moo xeeyoon ñu koy def sujjoot nag bu ñu wax ne yàllaa ko xeeyoo boobu mooy as sujjoodu shar'i sujjoot ñaari xaaj la dafa am lu ñu tuddee sujjoot as sujjoot lugawi ak sujjoodu shar'i sujjoodu shar'i ku ko defal ku dul yàlla génn nga ci diina ji xéeféer nga moo kam sab yonantu nga ko defal moo xam sab sëriñ nga ko defal moo xam sab buur nga ko defal waaye nag sujjootu lugawi moom nga defal ko sab buur mbaa nga defal ko sab sëriñ mbaa nga defal ko sab yonantu dara nekkul ca sujoodu sar'i yu mooy juróom-ñaari yax koy def noonu la ko yonantu bi jàngalee sama borom digal na ma ne naa ko sujootal sama juróom-ñaari yax yi ci benn riwaaya bi juróom-ñaari yax ya mooy jëbi ne ràpp ànd ak bakkan bi ci suuf ñaari loxo yi muy ne rapp ci suuf ñetta ngoog ñaari ñaari wóom yi ne rapp fekk ñaari loxo yaak jëba muy juróom cati baaraami tànkee ne ràpp boobu sujoot yàlla dong moo xëyoo ñu sujjootal ko ko koo ko sujjootal ku dul yàlla bokkaale nga loola mën na laa yóbbu ci génn ci diina ji waaye sujjoodul luxawi nag buñ ko waxee mooy sujjoot boo xam ne da nga caa jublu màggal ki ngay sujjoot ki ngay nuyu ngir màgg ak tedd nga gi yàlla def ci moom waaye fekk na manqué na juróom-ñaari yax ya manqué na juróom-ñaari cër ya mooy moo tax nga dem léeg nga gis koo xam ne bu nuyoo ab buuram fóon loxo ba ñenn ñi buñ nuyoo seen ab buur baa ñu nuyu seen ab sëriñ mbaa ñu nuyu seen ab kilifa jàllar bi ko jël jëba rek teg ko ca kooka matul juróom-ñaari cër ya ñenn ñi di jigéen ñi bu ñuy bu ñuy nuyu seen jëkkër yi ngir xormaal leen sukk hoom yaa dem waaye yeneen cër ya demut jëbi demut su ko defee kon nag loolu sujootul luxawi yu la sujootul luxawi yu boobu moom la malaaka yi defaloon aadama sujootab lunku la mooy ni jigéen ñi nuyoo seen jëkkër yi la moo tax yàlla ne usjudoo li aadama sujootul luxawi yu booba moom la yonentu yàlla yusufa doomi baayam yaag baayam ak yaayam defal woon ko ko ci inni raaytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara raaytuhum lii sajidina kon sujjóot googu sujjóotul luxawi yi la mais duur sujjóotu sara yi sujjóotu sara yi juróom-ñaari yax a koy def kooku moom yàlla dong moo xëyoo ñu defal ko ko moo tax xàmmee dafa baax bu ko mooy rek danga dem ba génnee ñoo xam ne ñu ngi ci biir diina ji fekk ñu ngi ci biir nga bëgg leen a génnee te ku nekk ci biir ku ko bëgg a génnee yow fekk yaa génn bu yàgg kon nag maanaam euh, euh, mala gi ñëw su jootal yonentu bi yonentu bi wax loolu saxaaba yi su ko defee kon nag ndeketoo yonentu bi yàlla tàggataloon na ko gëléem yi ñu nangul ko ak la ñuy rabe-rabe xataa tàggataloon na ko mbëtt yi rendi nañ mbëtt ba ngoon yonentu bi wax ak mbëtt ma ne ko yaa dabbu man anaa ci xisa bu gudd mu ne ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqad faasa man amanaka wa qad xaaba man kafaraka xataa kéwél yi yonentu bi wax na ak ñoom xataa tabaarakallaahu picc yi sax yonentu bi wax naag ñoom kon ni yàlla tàggatalee woon yonentu yàlla saalihu gëléem ya tàggatale noonu la ko tàggatalee yonentu yemul ci gëléem yi waaye njanaaw yeeg gëléem yeeg mala yeeg yent yent yeeg yëpp ku ci aman problème ci yonentu bi ngay ñëw ba ci mbëtt yaag tabaarakallaahu ak kéwél ya ba maam xalifaa ngay wax ne wa dabbu wa zabyu idnaadaahuma nataqa an laysa azamu min taha wa yaasiini boo demee ca tabaarakallaahu euh, nuunu yaam bi nga xam ne mi ngi koy def ak euh, andalusi boobu ibnul xatib al andalusi yu ñoom ñaar ki ci taddimin ba maam xalifa ngi cay wax loolu kon nag wa dabbu wa rabiyu id naadaahuma nataqa an laysa azamu min taha wa yaasiini kon wax naa la yonentu yàlla huut tabaarakallaahu mayam ya ndeketoo mbubb la mu ko yonentu bi xamaloon waaye wax naa la yonentu yàlla saalihu ak mayam ya ndeketoo mbubb la ko mu ko yonentu yàlla muhammad abaloon ñoom ñaar kenn ku ne sa ndiñ wa ilaa aadin axaahum hudan kii wa ilaa samuda axaahum saalihan boo ma toppee suba nag ci waxtu wi ma tuddal la juróom